Je suis animateur, j'ai déjà fait euh, pas mal de radio J'ai été euh, pendant trois ans à Safir FM Dakar, Safir FM Sali, Safir FM Bakebaol, Safir FM Simal, Radio Paradise euh, TV, Radio Paradise Foire TV. Foire, cela veut dire la lumière. j'ai été là-bas et j'ai été aussi à Zig FM Kolda, Zig FM avec Z, pas Zig FM avec K. Hein? Dama sonne grand, dama sonne Wow, euh, nga baal ma ci tout la ah. Voilà. hein.. Euh, euh, voilà Proxy TV man yalla ma ci la waaw xam nga li tax ma wax ko jour bi may tombé ak annonce bi dafa euh ma am jot pour cette télé parce que léeg am jot mais yalla moma ma ci tomber ko tomber..! donc amna yakar inshallah incha rabbi parce que lepp ci ci maanaam bu ko yalla soobee lay daal di ndax ndaxte wax bu yegg yegg sax yalla la neex donc euh, sama teewaay fi euh, programme euh, programmation suñu borom la duma ci lenn yalla mo newoon dina teew fi. jakarlo ak mbolom mi donc man bu ci yalla àndee suma ma proxy TV incha allahu rabbi am Dina yaakaar dinaa télé bi ci kanam parce que j'ai beaucoup de concepts d'émission sincèrement dama sonu ma ngi jégalu. Euh, balama maa tontu si sa laaj dama bëggoon wax touti ci tënk ci sama jaar-jaar jotna def ay émissions thématiques yu bëree bëree bëree jotna naa sur le terrain jamonoy magal Touba may def euh, ma ma wàcc sur le terrain di def di wax di wax mais euh, ci ci ci li ma gën ci ci li ma yàgg ci li ma yàgg rêvé ci walu émission mo xam ci télé la mo xam ci radio la amna na émission bu mo bëgg def mais gisaguma d'abord ben télévision wala ben radio diko def moy ban émission euh mën naa ko wax émission mën naa wax émission bi ah baal ngeen ma ah ok waaw sama yaram moo tàng nag léeg-léeg voilà am naa am naa concept am naa concept émission bu rëy boo xamante ni bi benn affaire bu ndaw bon c'est comme si Mangi melni euh, c'est comme si Mangi melni mel euh, c'est comme si Mangi, c'est comme si Mangi, par exemple euh, Radio Paradise TV parce que mom la mujjee nek dafa melni ni ci ci par exemple voilà. mbokku déglukatu rajo Paradise TV euh, Paradise Foire FM TV Kolda ci 96 point 5 maa ngi leen nuyu bu baax a baax ku si nekk turam ak santam euh, di leen fàttali euh, ci waxukaay bi Moussa Balde mooy Addu alias DJ Kora l' enfant chéri di Fadou Pakaaw Balantakunda ci seen émission jotaayu ndaanaan yi tey ma am ndaanaan bu mag bi nga xamante ne bii moom laa war a dalal fii ci studio euh, Alassane Diédhiou euh, bu rajo Paradise Foire ci seen émission jotaayu ndaanaan yi ndaanaan baa ngi wuyoo ci tuuru Racky Bandel Sall Racky Bandel sal nag kenn euh, du ko présenté ndax daal di ndaanaan bu mag a mag boo xamante ne bii bay na waaram comme ni mu waree ca waar wa